toll ci juróom benn ñoo xam ne jot nañu leen a dégloo journal bi nee na mbir yi nag doy nga xam ne moom lañ dénkoon lépp lu jëm ci wàllum gi yaram gi ci Sénégal daat nañu koy dàq journal bi di Rewmi Quotidien nee na Marie Khemesse Ngom Ndiaye moo ko wutoo moom mi nga xam ne moo nekkoon directrice santé publique yéen a gi de l'info nee na ministre de l'intérieur niki démb ca Tiwaawoon daat nay wax ne danañu auditer lépp loo xam ne jëm na ci wàllum installation ak wàllum équipement bay ba jandem nga topp ca di watiso di dóor mooy lii yéen kaay gi di Dakar Times nee na ñeenti liir yoo xam ne faatu woon nañ ci atum 2021 ci Linguère 2022 fukk ak benn ci ay parental ci ay liir faatu ci hôpital Maam Abdou Wa ci Tivaouane lii nag c'est inacceptable maanaam kenn mënu ko nangu trop c'est négligence bi sàggante gi nga xam ne moo am ci wàllum wér gi yaram gi jéggi na dayo maanaam situation bi moom dépassé na kaay gi di Walf Fadjri nee na nag giraawali géeka njombe gi nga xam ne moo xew ñu bare bari maanaam laale nañu si waaye nag lépp dafay yépp ci Abdoulaye Diouf Sarr yéenekaay gi di évidence Abdoulaye Diouf Sarr dañu ko sacrifié noonu la ko journal bi gisee bu dee nag journal bi di Source moom nee na Macky Sall ci boppam moo sacrifié Abdoulaye Diouf Sarr ndax nag jamono ji coow li ak mbamu mi bëri na loola te nag Macky Sall ma ngi ragal askan wi sanctionné ko ci élection yi nga xam ne moom la ñu la loole moo tax Macky Sall gaaw joo ko sacrifié Abdoulaye Diouf Sarr yéenekaay gi di Rewmi Quotidien ñu xëy fekk fa Cheikh Tidiane Sy Al moom na état bu Sénégal nee na giraawaali ak njombe gi lépp bu ko kenn jiñ kenn nañu ko jiñ état ndax Serigne Babacar Sy Mansour Mansour mi nga xam ne muy xalif général di Tidiane yàgg naa alerté wax yàgg naa waaye nag gars yi faale wuñu ko moom Cheikh Tidiane Sy Al Amine nee bu ñu waxante dëgg Serigne Babacar Sy Mansour jamono ji am na lu ko naqari lool ci mbir mi xalif général di Tidiane am na lu ko naqari ci mbir mi mer na ba maara détaal yi ndax hôpital bi dafa feebar hôpital bi ci boppam moo feebar te yàgg feebar te Serigne bi yàgg na ko jàmbat waaye nag ko faale ndax nag xam ne ñoo yeewoo Tiwaawan ak ñi nga xam ne ñoo ko wër maanaam ci nag fi nga xam ne mooy Tiwaawana waaye nag ay waxi neen la ay wax la joo xam ne musuñu ko jëfee Assane Samb ci journal bi di Rewmi Quotidien nee na nag na yi fi la ñu nekk di wax mbirum arrestation nam nag amaana munta ñàkk waaye nag li nga xam ne moo jàmp maanaam ñu wane fula ak fayda ci lu jëm ci wàllum wér yaram gi ci réew mi yéen kaay gi di l'info nee na ñaari at xalif général des Tidianes ma ngi alerté ci lu jëm ci hôpital mam Abdou bi waaye nag gars yi ko faale yéen kaay gi am na infirmière yoo xam ne bëggoon nañoo sauver xale yi waaye nag loolee mujj da sotti yéen kaay gi nee na bi jël nañu ko dénk nañu ko waa DIC am na lu toll ci juróom benn ñoo xam ne déglu nañu leen journal bi di mandat nee na scandale bi nag rëy na genn xeetu rëy goo xam ne mënu fi woon a bàyyi Abdoulaye Diouf Sarr yéene kaay gii de la témoin xëy di ñu xibaar naa ñu lii dafa mel ni mënutoon a ñàkk dafa mel ni gars yi gisoon ko crime d'état yéene kaay gii de l'observateur nee na coalition Yewwi Askan Wi ñoom nag nee nañu suspendre nañu seeni activité politique lu toll ci ñetti fana yéene kaay gi nee na coalition wàllu ñoom tim am nañu lu naqari lool ci mbir mi nee nañu nag nañu si ubbi ab enquête waaye nag nañu jël ay daana lal ko ci ndodul ñi nga xam ne laale na ci mbir mi yéen kaay gi di la turbina bàyyi mbir moomee wax nag ahlan wa sahlan al muntaxa sëriñ muntaxa mbàkke basiru xalif général des mourides tey jii dina dikk ci ndakaaru ngir ngan goo xam ne dina ko fi amal ñaari fan yéen kaay gi di la soleil wax ci coopération sénégal angola ci lu jëm ci wàllum hydrocarbure wàllum commerce ak wàllum tourisme journal bi nee na dakar ak luanda daan nañu signé lu si ñetti accord yéen kaay gi di réew mi quotidien xëy di ñu xibaar naan ñu yi nga xam ne ñooy def examen ji ñoom dañoo jaaxle ba maara détail yi yéen a kaay gii de nag g ñoom jamono ji mer nañu ba maara détail yi nee nañu juróom-ñaari fan yoo xam ne dañu koy gerew total yéen a kaay gii de l'info Abdoulaye Daouda Diallo ministre des finances daal nay wax ne protocole d'accord bi nga xam ne signé woon nañ ko ak jàngalekat yi lépp la état bu Sénégal respecté yéen a kaay gii de la moom Abdoulaye Daouda Diallo nee na ci histoire syndicale ci ne yokku nañ ko salaire u jàngalekat yi loolee musta am ci réew mi yéen a kaay gii di Vox Populi ministre des nag indi ay leeral ci mbir mi yéene kaay la témoin moom Abdoulaye Daouda Diallo nee na état bu na mbooleem engagement yi nga xam ne maanaam signé woon nañ ko ci protocole 30 avril yéene kaay gi di exclusif moom Abdoulaye Daouda Diallo daal di wax yi toll na ci 220 pour cent ci prime scolaire instituteur ak instituteur adjoint indemnité enseignement 50 pour cent à 60 pour cent prime contrôlée maa ngi ci 100 pour na ci Kopanaaw foofee nag benn